ñu leen xamal ni euh, suñu xarit suñu rak Adja état de santé fu mu nekk nii mooy li ñu gën a soxal naka nañuy def ba loraange du jóge du du loraange ci lu mel ni loolu mooy suñu préoccupation numéro un maanaam mooy suñu soxla bi gën a euh, kawe. gannaaw loolu nag ma xamal leen ni gise nañ ak ministre de l'intérieur gise bi ñi ko fekk woon. juróom-ñaari nit nañ euh, Simpix ci la bok Corrède ci la bok Fonda euh Jeune Reporter ci la bok Appel ci la euh Union des photographes ci la bok ñu and ci nak ak ñaar organisation internationale ñu Reporters sans frontières ak article 19 gisé bi euh xawna gudd touti ndax may nañu ñu lire suñu bataxalu ñaxtu bataxalu ñaxtu biñu ñu déposer tay tey jox nañ ñu opportunité ñu lire ko ba mu jeex bi mu weesoo ñu def tour de table képp ku nekkoon ci salle bi jël kàddu gën a euh, wax leneen gën a gën a gën a xuus si mbir mi euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu tënk ko ci li xew bërki dem waaye it ñu fàttali cas yu bëri yi nga xamante ni chaque fois dafay xew te xëy na du am ampleur bi euh, bi ñu paree ci loolu li ñu mën a jàpp mooy ministre bi ñetti yëf la wax bi ci njëkk mooy.

muy entité boo xam ne dafa autonome bu nekk ci biir police entité boobu dina def enquête bi pour fësal euh, manquement yi nga xamante ne éléments yi def nañ ko pour xam exactement nan la demee et puis effectivement sanction yu dina ci tegu muy ñaar ñetteel bi euh, mu ministre bi ci boppam xam nga waxoon nañu ko sax joxoon nañu promesse boobu juróom benn weer ci ginnaaw bi ma fi ñëwoon man ak sama xarit bu Reporters sans ne woon na euh, comme gis na ni jiixi jaaxa day faral di am diggante euh, journalistes yi ak euh, way takk der yi jàppoon na ni moom dañ foog ñu teg ay ay cadre pour mën a waxtaan pour takk der yi surtout xam ne journalistes yi duñu seeni noonu bu ñu ñëwee si terrain bi seen liggéey moo leen fa andi journalistes yi tamit xam ni takk der yi duñu seeni noonu bu ñu ñëwee ci terrain bi muy manifestation bu ñu autorisé ak bu ñu ñàkk autorisé ñu xam ni journaliste dañu fi ñëw ñoom it pour def seen liggéey muy ñaari euh, mbir yoo xamante ni jàpp nañ ni war nañ mën a tagal ay kuréel yoo xamante ni régulièrement dañ koy def même bu fekkee sax dafay jar dans le cadre formation policiers ak gendarmerie yi ñu gën leen xamal lan mooy rôle lu média gën leen xamal surtout lan mooy limitu àq ak yelleefu doomu aadama parce que doomu aadama bi ngay sol policier bi ak gendarme bi ak journaliste bi yëpp a yem ay sénégalais nañ bu weesoo tenue bi ñu sol ñun tamit am nañ suñu ay tenue yu ñu sol li ñu tënk te tënk leen ñoom euh, mooy loi loi nag moo leen jox doole pour ñu mën a jëfandikoo doole ci nit mais loi boobu dafa am nu mu ko tënkee lu leer donc du rek sol naa tenue damay def lu ma neex mais tamit du rek journaliste la am naa carte de presse damay def lu ma neex donc ñaari position yoy il faut que ñu léral ko ba nga xamanteni inshallah yu melni ni dootuñu ko am ñu bëggatuñu ko gis bëggatuñu à partir d'aujourd'hui ñu naan way journaliste bi dafa taal micro ñu mbéj ko wala non dégage d'ici mu bañ ñu dóor ko yooyu bëggatuñu ko gis parce que fay néwul doole suñu réew aussi ñun Sénégal dëkk lañ bo xamanteni fofu lay terminer tay bu nga xolé kuréel yi nga xamanteni dañuy défendre droit journaliste yépp ci aduna bi am nañ bureau Dakar nous avons parce que dafa am Sénégal Si représenté bu ngeen avez des nekk terrain si vous médias internationaux plus de 50 médias internationaux ont nañ bureau Dakar wala un correspondant c'est parce que le Sénégal représente am Sénégal. le représenté Sénégal représente, représenté que ñun loolu nañ bëgg ñàkk ba nga xamante des benn taq-taq wala benn tilim nous respectons les fous, de dont les journalistes